나오다. dans votre scandale de ce 14 août suñ fa jógee dañuy desandi toujours ci voyage premier ministre de la république du Sénégal Fofotier Kigali ak li nga Mali, qui dit Mali qui di Tunkara que chroniqueur Fofotier de 2STV dal de fu indi benn jubbanti jagleel ko li nga protocole bi nga le président et le premier ministre Amnenko, en tout cas Dengel lañ en tout cas qui dit Tunkara indi et ci ay jubbanti nañ Tunkara par rapport à Glinga nga le grand journaliste Adama Gaye bind na ko jëmale ko diplomatie binga nga xamante humilié, dañ de humilier Tunkara de l'histoire. sunu jotaay saa su ne dañ koy tàmbalee benn euh, jubbanti. question jubbanti dafa dem ci protocole premier ministre euh, bu Sénégal Ousmane premier ministre ñu ko gis dem fële ca Kigali Rwanda wala euh, dogal président de bi ñuy tabaat Paul Kagame. dañuy gis ñu mën a gis benn photo boo xam ne ñuy feeñ ci mu toog ak jiitu réew moomu Paul Kagame ak ay ñeneen ñu muy liggéeyal ñu wane Paul Kagame toog ak drapeau Rwanda waaye drapeau Sénégal bi newu ci saal boobu loolu si wàllu protocole ak diplomatie loolu moom warul nekk moom dafa jiite mu dem jiitu réew moom teg drapeau réewam war a teg tamit drapeau réew bu Sénégal bon premier ministre nag yii yu bees la si moom moom opposition la tëddee xamul woon euh, pouvoir nii euh, dafa am nag ñoo xam ne ñoom ñooy liggéey ko waa protocole bi waa protocole bi ñoom loolu seen liggéey la balaa jotaay boobu doon am waa protocole bi waa sécurité bi ñoom ñooy njëkk a dem ci salle bi xool nan la ñuy toogee xool kenn ku nekk kenn jublukaale soxla xool drapeau yi mbirum na nga faa wala new waa protocole bi ñoom ñoo laaj foofu ndax ñoom ñoo waroon bàyyi xel balaa jotaay bi dem ne drapeau Sénégal moo fi des ndax euh, Sénégal moom moo fa toogoon ndax njiitu gouvernement am kon nag premier ministre nag day jàng ci BRS moom euh, affaire yi dinañ ñëw naan naan waaye fii benn euh, tàmmali la boo xam day wane ni protocole bi seen liggéey war nañ si gën a góorgóorlu ba premier ministre wala président la wala dem fenn ñoom ñoo fi war a jiitu xool yi yi mu soxla yëpp ngir Sénégal gëddal ko ñoom ñu fexe ko yooyu kon ñoo ko déggandoo Tunkara réaction am du dara jubanti dul jubbanti ndaxte ku dëllu dëng dañ koy jubbanti te ñoom ñoo wootee jub jubal jubanti kon ñoom ñii kat suñu jubul dañ leen di jubbanti Tunkara jubbanti na leen jëmale leen ko daal ci li nga xamante ni tey dafa bafoué diplomatie Sénégal jëmale ko foofa ca Kigali ndaxte même pas le drapeau du Sénégal gisuñu ko mu parallèle ak drapeau bi nga xamante ni Rwanda jëm ci signe de respect signe di honoré signe ci considération gisuñu ko fa donc loolu humiliation la jëmale ko suñu walu diplomatie mais ni ko Adama Gaye xamle Tunkara dara xamle ko su dee invitation la boo xamante ne da nga koy pour wane benn gëdd boo xamante ne dañ la koy jox ak yaakaar bi nga xamante soo demee dañ lay au rang du président de la République alors que ba nga excé foofu réew yooyu dañ la xamal que yamal sa place tu es un premier ministre tu pas le président de la République tu n'est pas élu démocratiquement par les Sénégalais donc tu es une personne qui a été nommée par le président de la République par décret donc yamal si place ñi nga xamante ne dañ le nommé par décret mais tu n'es pas le président de la République et ça a été prouvé ça a été montré par ki nga xamante ni mooy Kigali ginnaaw loolu nag Adama Gaye lim ci xamle manam lo yàkkamti yàkkamte pour ñu bolé la ci li nga xamante ni bokkoo ci woon soo eggee lañ la wara téro manam dañ lay téru ci ñi nga xamante ni préparé wuñu won dañ leen di wara téru motax amul benn accueil bu chaleureux bo xamante ni réservé nañ ko kii premier ministre de la République du Sénégal plus particulièrement dañ ko relégué au deuxième plan lii di drapeau am kenn gisu sax muy flotté fofu donc dafa melni que le Sénégal n'était pas présent à Kigali